sëriñ Abdul Ahad Mbàkke keroog ba mu ganee jamono ba mu tuur sëriñ bi daa wax mag ñi ne leen ku mën turam wi doo lakk muy Abdul Ahad daal di wax mag ñi itam ngeen ma ko ñaanalal ndax am naa ci moom yaakaar yaakaar jooju nag tasut benn yoon moo tax daana wax ni nit lu mu jaay te yaakaar jot ca njëg la loolu moomatu ko daal di wax ni moomuñu sunuy bakkan moomuñu sunuy alal sunuy lépp sëriñ Tuubaa moo ko moom